yalla nattu la faaw ñu lepp lo xamni lu ñuy ar la faaw ñukay jël di jëfëndiko sax do dañuy tak max na fi ñuy tok dafa am dafa and ak ngelaw motax max duñu tàggoo mo masque yi bu yag lañ ko waron tak avant ministre bi di wax ni nañ ko tak parce que man tay bima xey ci la yëg ni ministre bi wax nañu nañuy takk masque yi mais man avant lool da na ko tak mais lu war la parce que nit boo nekkee ci réew pour man am loo xam ne ñëw na ci réew mi ñi nga xam ne ñooy say kilifa bu ñu la defal li def ko parce que loolu ñu lay defloo lu lay aar la yow yow mi nga xam yaa nekk ci réew mi pour man jërtoon sax ñu nga xaar ministre bi di wax ni nañ takk masque yi wala nañ def lii ñun ñun ñoo waroon def loolu avant ministre bi di ñu ko wax saa yoo xëyee damay changé damay fóot beneen bi changé beneen. waaw dama gis nii euh, dama gis dama jàpp ni moo gën a baax rek parce que dama gis tamit boo boo xool ci boo boo xool ñu bari moom la ñuy takk moo tax man duma ma duma du ma takk yeneen masque yi mais bii la bii bi bi feebar bi commencé ba léegi masque bi laay takk man. xanaa aar nit ñi rek moo tax mu jël ko. loolu doo nga tax mu jóg. ñu citoyen ñoo war a jug lépp loo xam ni euh, feebar bi lu ko fi jëlee la ñu jug nekk ci. dafa am dafa am ñu si mën a nooyi am ñu si mënul looloo tax nee ñu bañ koo takk waaye takk ko moom aar sa bopp la. am na am boo xoolee ne di nga gis ñoo xam ne takkuñu masque mais nag doo xam lu tax takkuñu ko. xam nga ku ci nekk moom la tax deful liñ ñu santaane moom moo ko xam mais nag ña nga xam ne ñoo war pour ñëw defloo ko ko ñooñu ñoo ñooñu loolu ñoom la mais moom ku ne war nga ko takk moom. masque yi dafa may façon comme bi ma tàkk nii. 500 laa ko doon jaayee. bii def mbangi eesa bii lii war nañ ba soññi dëkk bi yëpp mënuñu ko ba am léegi bi ma yor nii maa ngi koy jëndee. maa ngi koy jaayee 300 300 maa ngi koy jaayee 300 mu gaaw. waaw bii duñ ko fóot à Zatel benn yoon nga koy tàq waaw.